ci la taalif téere di ko gàmmoo ci kanam Maam Alaaji Abdoulaye Niass ñetti at yoo xam ne mu ngi gàmmoo Maam Alaaji nga tëdd ci néeg bi bàyyi xel di gàmmoo dégg nga képp ku Maam Alaaji Abdoulaye Niass bàyyi moo moo moo doon kilifa mag ñi nag moo doon moom ci boppam moom mi taaw bàyyi Alaaji Babacar bàyyi Alaaji Mor Seyni ko ak Baye Mahmoud am yeneen rakk yu leen xuutu Baye Amal Niass Baye Cheikh Omar Baye Cheikh moom tam ci mag ñi la bokk ak Baye Ngaye Ngadja caat yi nag mooy Baye mbay ak Baye Cheikh Tidiane ak jigéen ñi ak ak ak ci Baye kon moom doona lim dox ci kanam baayam ci kanam baayam Euh, ni nga ko mën a déggee ni ko mën a déggee kilifa gi dem na ngédd li dara waru ko bëtt ñàmbi ji dara waru ko yàq parce que mooy suñ teraanga mooy suñ teraanga mu téye lépp ëmb lépp uuf lépp kii di bàyyi taarix wax na ne nekk na ci loxol bàyyi xalifa di wéy ci ndigalam ba xam ñetti soxla kon mus sa ñàkk wéy ci ndigal ba ba yàlla placé ko fi ko yàlla placé te it musuñu wute musuñu kon ngeen ngeen ñaam bi li ma wax nag kii dañ ko bàyyi responsabilité mooy lii nga xam ne moom laa nekk ba tubaab bi xeex ma lakk sama jàkk ma génn sama njaboot dem Gàmbi dem fu ne ma dem fa ngir taxawal xam-xam ba sànq sax ma ngi waxtaan Cheikh Tidiane bi mu ne jàngale ci bindi tubaab yi ñu ne Maam El Hadji Abdoulaye mooy mooy jullit bi gën a bon dë dëgg gaa tax mooy koo xam ne moom lislaam bi maslaaxu maslaaxu ci benn tubaab dégg nga waaw xéefara bu ne jullit bi moo gën a bon ah? xam na ne kii xamul ci moom soxla boobu mooy bu baax bi ku tubaab seede ci yow lu baax rek xam na fu mu jaar ak yow da nga nangul kooku maam Abdoulaye mos a jaar ci loolu te Sénégal gii moom dong moo ci dee fetal xeex moo ci téye xeex tey ci saalum gii ci jamono gannaaw ma ba sérmati wuutu ko moom moom moo yor yoroon xaadi bi di xatte maa ngi maa ngi kaset bi bàyyi ko nettali ba xam na kum xam kum mosoon a xatte ci waa Tiwaawan seen seen bàyyi ñu xatte ko ma laa ji moo ko xatte sérmati def la war loola mu indoon melo yëpp maa ngi kaset bu la neexee ma tegal ko li ngeen déglu. Hmm. gannaaw gi sax doomam maam xalifa lañ ko jox mu yaate. dégg ko kon yooyu am na. Hmm? baal ma taarix bu ñu waxee ne Malaaj Abdoulaye moom hmm. moom moo xare ci mboolem sëñ ñoom senegal waaw te bokk na ci taarix. Maam Mor Sali. waaw. ma baa waaw moom bi ñëwee dafa bokk na ci xarit wala bokkatoon ci waaw dafa am ñoo xam ne bi ñëwee dañoo boole ñaan ak xeex mhm. ak ñoo xam ne bi ñëwee dañ doon ñaan rek waaye xeexu mhm. mhm. maam El Hadj Abdoulaye bi mu ñëwee dafa boole ñaan ak xeex gàddu gi di xeex ñu laaj ko wax nañ ci taarix même bu ñëwaan bay xeex ba pare ba dafa ñeen andi leen ma tenteng waaye ñu du ko tam bal ñu ko jëm yëpp sotte bu doon tey ci wàllu tubaab li ñuy wax général moom la dégg nga tey jàngal jàngal na seen mati mm-hmm. seen mati booba maam laaju daal mi ngi mbitte yéen bitin kii boori tey ba wala nekkoon bi seet mati bëggee mu jàngal ko mu xoo ko mu ne ko xam-xam du fekki xam-xam dañ ko fekki hmm? Hmm? loolu bu léegi ku ci ku ci màkk sall woon nga daw bay a dee waaye toog ne ko xam dañ ko fekk si hmm? nga xamee njàmbaar ñu defal ko néegi ni ay ay mbaar ak i pet pet mm-hmm. mu indiwaale ak gàtt yi mu war a lekk mm-hmm. ba weer yam fa war a xam xam ko fa doog a delluwaat mm-hmm. foofu la jaar maam moo tax fekk soon na ko waaye histoire bindu ne xeex na waaye sëriñam ñànkat la woon la yam laay nag dafa boole woon ñaan ak xeex ndax booba bi muy ñëw ñuul kële moo moo bàyyi ma àndoon ñëw te booba moom mën na wax waaw li la woon waaw lii mooy mbir mi dafa tolloo àjjana tey. na leneen